fay buur léegi bi nday faatu waaye léegi yërim ndeela yërim macala mbaay xel yëpp dañoo dem ci Dudu Seck yaay kat yi tey alaaj ngeen boon laaj kan mooy Dudu Seck way wi ay da njaay way laaji Badara Mbay Kawaka wayoon moom la Dudu reprendre Dudu Kumboros histoire alaaji Dudu Njaay Kumboros ak Dudu sek ken mënu ko ci ak taxawu Doudou Seck alaaj Doudou Ndiaye Coumba Rose bi mu reprendre wayu alaaji Badara Mbaye Kaba teg ci Amat Sam Demba Labba moom Aïda Ndiaye fan na xamee ne ndaanaan la bi mu koy way bu daaneelu woon ci Doudou Seck ma xam ne du ndaanaan moo tax dafa dawloo sunu yaram ñun ñëpp léegi ci way wi Doudou Seck ñun dañu gimi fekk ko ci làmb daan ko gis si mbapat yi Fass mbappatu Grand Dakar mbappatu euh, euh, kii ñoom Birahima yëpp fa la daan siyone du sekk da way daan na léegi rek la bal bay un doon wax ñoom ñaar dañu daje mbapat mu dëkk ko mu dëkk du sek parce du sekk da daan woy di bëre mu dëkk du sekk ñu bëre ñetti round kenn mënul daan du sekk ngand ko ñii bëgg xeex ñu àtte làmb ji nga xam ne duudu dafa matale woon làmb daana bëre daana tëgg daana way kooku la ñu ñàkk mais ak njabootam fustige surtout ñàkk taxawu ñàkk taxawu ndax démb soxnaam wax na ko ne dafa demoon ba gisatuñu kenn demoon ba pat mi sax am problème mennum Alioune Badara Mbaye petit rek la ñaan gis mu ko daan taxawu rafetluwuma kàddu yooyu moom mënul dem fépp moom soxna si ñu ngi koy wu nag waaye fépp mënu faa dem te duudu ñun ñii daana wo daana wootanteeg ñun du ku duudu ku duudu di waxal rek mu yëg ko xëy na bi duudu néewee doole la commencé concerne loolu mais duudu daanañ jëf la daana jëflanteeg ay nit yoo xam ne xëy na du ko wax du moment bi c'est pas le moment duudu dafa national dafa am loo xam ne jarul biral euh, du sekk ak Petit Mbay en 2000 la Doudou Seck def na cinquante ans ci làmb ji presque moo Petit Mbaye 2000 la commencé presque bi Petit Mbaye ñëwee ci làmb ji la fese noonu moom it di jàmbaar téyel ko moom Petit Mbaye di ko ci gërëm di ko ci sant waaye am na yoo xam ne bu xewee bul personnaliser ndax Doudou du 2000 la commencé dund dund na lu jiitu 2000 amaleen nag nit ñu ëpp euh, avant Petit Mbaye et tout bëgguma ci woon dugg waaye maa ngi koy ñaan ne ko no bañ a personnaliser affaire duudu moom mi nekkoon ak duudu sax xamul duudu duudu ñun ñi nekkoon a moom sax xamuñu ko làqu na ba dem yal na ko yàlla yërëm maa ngi koy wax moom soxna si loolu yëpp na ko teg si suuf amul amul solo di ko fésal tey jii maire Ndiagne Diop du jël na terrain jox ko ko tey maire Ndiagne Diop dagg na terrain jox ko ko moom soxna du Seck ak njabootam. tey ji te loolu ministre des sports la teg ci loxoom te ministre des sports xam naa ne suuf soosu du jël rek teg ko ci njabootam dinañ ko taxaw waxak moom ba ñu tabax ko moom mu dem dugg fa ak njabootam ngir du sek waaye maa ngi koy ñaan bu wax boobu na ko teg suuf du ñëpp ko bëgg xool yëpp la ne jamono nag ku ci mere nit rek da nga ko xoolul sa bopp waaye fen doxul